d'identité amutoon carte électeur ba yaanaa maar sax tàmbali woon di def signa def ay signé plant pour que ñu jot suñu carte d'identité am na ci sax ay sénégalais yoo xam ne mënatuñu sax dem luye ji baas ndax amuñ carte d'identité ndax boo bëggee luye baas si amoo carte d'identité kenn du luye baas. wala corbeillard pour yóbbu sa wala nga bëgg a yóbbu sa néew mënoo sax luye corbeillard ndax carte d'identité amoo ko ñu ne coowal carte d'identité rek léeguñu ko coowal carte d'identité sénégalais bi nga xam ne bëgg nañ jot ci seen carte d'identité mënuñ ci jot rek léeguñu ko. ci élection yi ñu jëm nii ñu bëgg ci yokk beneen coow loo xam ne dafa ñereen yee fitna ci réew mi ndaxte tey jii dañu ne dañu bëgg a indi benn loi bu bees boo xam ne dina indi fexe ba ñu indi ndayele ci wote gi walla bàyyele ndayele gi mooy lan mooy que bu njëkk ba da gis ay parti politique yu ndaw yoo xam ne dañ duñu duñu du kenn duñu am kenn ñoom kenn rek la ñuy nekk presque nekk ci rajo yi di woote bu ji jotee ñu dem ut ku ñu lëkkaloog pour ne da ngay ànd ak moom pour dem ne pour que nga mun a presque daal op GIE lañ ko doon def léegi ñun ñu xalaat ne loolu pour que Sénégal fexe ba ñu wàññi parti politique yi loolu ñëpp a ci d'accord waaye it ñëpp d'accord nañu ne képp ku yëkkati sa loxo ne da nga bëgg jiite réew mi war nga mun nag réew mi fu ne nga am ñu la fa nekkal dañ ne sax cette région yi ñu wax waroon nañ fexe ba sax mu fexe ba laal Sénégal gépp parce que bu dee dañu ne waa waa waa waa Fuuta kese la wooteel wala ñu ne waa Casamance rek la wooteel ñu ne waa Jolof rek la wooteel loolu baaxut ci réew naka la ñuy sàmmee réew mi ku jug rek ñu ne Sénégalais yëpp d'accord nañ ci pour nga ànd loolu ñëpp ci d'accord d'accord nañ it ci ne ñun Sénégalais yi nga xam ne suñu koppar dafa néew na la ñuy fexe ba suñu koppar yu ñu joxal suñu état bu ñu def lépp ci élection parce que élection yu bëri candidat xaalis bu bëri la donc yooyu yëpp xalaat yooyu yëpp d'accord nañ ci waaye nag lu benn Sénégal dul nangu mooy ñu jëm ci élection di ci jëf ay jéego te waa sénégalais yi te nga xam ne ña nga xam ne ñoo ko ŋànk ànduñ ci maanaam lu ñuy wax décision unilatérale maanaam man am naa nguur rek am naa député yu doy rek lu ma neex ma def ku ma neex ma féewale ku ma neex ma dàq ku ma neex ma dugal pour rek ma toogaat fi man kenn rek te ñu ma neexee loolu dafay delloo réew ginnaaw ndax bu ngeen fàttalikoo ci réew mi ci atu 90 yi jamono yi sax ñoom Ablaye Wade la woon nekk ci opposition bi ànd ak société civile force vive bi ñoo fi ne di xeex di lëwatoog Abdou Diouf di ab Abdou Diouf bañ d' accord ne kenn du fi defati élection loolu ci ñëpp ci lañ d' accord looloo fi indi bañ gàcca looloo fi indi lii looloo fi indi laa looloo la ñu ne waxtaan ba juboo ci réewu senegal dafa nekk loo xam ne askan wee ko war a sàmm waaye tey jii dañu gis ne nguur gi fi ne mi ngi bëgg a jël ñun dugguñu ci débat politique bi maanaam dañu bëgg xañ kii nekk candidat suñu yoon new ci ñoom ñoom ñun bëgguñ nekk candidat du toute façon donc yooyu suñu yoon new ci mais lu ñu ci yemb ñun askan wi mooy lan mooy li nga xam ne mooy wàllu askan te nag dañu ne réew mi buñ fi buggee indiwaat buur rek ji dogal ci élection dina fi yee na ndax élection yu métti yi ñu fi daan dégg si jamono ñoom Abdou Diouf li ko indiwoon boo fi gisoon ay gars yi di xeex ay saalum ñu naan man ña ngay taal fii fii ngay tàkk lu ko indi woon parce que waa nguur rek a doon décider ci élection loolu nag Sénégal demoon nañ ba foog ne jeex na fi tey jii nguur gi fi ne bu ko indiwaat ci loolu lañuy ñuy ñu ne te loolu nag Macky Sall ak ay ñoom dañ ci am part wu rëy ñu ne ñoom nañu commencé nañ ko dakkal nañ ko dakkal balaa dara di xew waxuñu dañuy dem xeexi wax dañ ne balaa dara di xew nañu arrêté bu ñu taxawee am na ci ay sénégalais yoo xam ne bëgg nañ tànk jàmm ñu ngi ciy dox ñu mel ni Alioune Tine ñu ciy woo sax suñu kilifa diine yi. ñu ngi ciy woo suñu kilifa diine ne képp ku ci mën a dox pour que opposition pouvoir mën a toog ñu waxtaan nañ ko dox moo tax ñooy nag Macky Sall ak ay ñooñam arrêté bu ñu arrêté ñu taxaw ne nañ député yi dañ leen dajee fële assemblée nationale suba nañu taxaw bu ñu taxawee ñu waxtaan suñu waxtaanee nag xëy na am na yu ci bëri ñu d'accord askan wi xool nañ lañ ci avancé bu ñu ko defut dañ jàpp ne état du Sénégal moo bëgg a indi fitna Sénégal parce que moo fi bëgg a indiwaat wéy woo xam ne foogoon nañ ne réew mi romb na ko am na wéy woo xam ne dañu foogoon ne romb nañ ko ñu bu ko indiwaat pour loolu bañ a des ñun nañ ko dakkal bu ko dakkalee ba pare nag ñi nga xam ne ñu ngi waxtaan ñu bàyyi leen ñu waxtaan état am na ci rôle opposition am na ci responsabilité mais tey ji fuñ ci toll nii état lañ mën a wax ak bu ko defee ñoom buñ ko dakkalee ñu waxtaan ñëpp ñu mun a wax ñu wax suñu waxtaanee nag ba jubóo réew mi jàmm des buñ ko deful nag dinañ jàpp ne état du Sénégal mooy responsable te su boobaa buñ ko dakkalut su boobaa ñun waa Y'en dañ jàpp nañu ñun nekk cundum ci réew mi dina dinañu ànd ak ñëpp ñu bëgg a Sénégal am jàmm te jàmm nekk di fi sax ñu ànd jug xeex ko dinañ assumer suñu responsabilité pleinement foofu daal lañ ci tolloon moom la woon nañ ko ñëw waxtaan ci ko askan bi ñu yëgal leen ko balaa ñu naan dañ fi bëgg a yee fin naag ay yeneen 23 juin ñu ne ah am na woyu fi nar a jug te baaxut ci réew mi nañ arrêté lépp ñu waxtaan bu ko deful nag ña war a jug dinañ jug su boobaa yàlla maa dina jugandóor ànd ak bépp sénégalais boo xam ne te prise de justice comme ni ñu ko yàgg defee pour que ñu pour que ñu loolu moo nekkoon déclaration liminaire bi bu fekkee am na ay laaj yu ci bëgg ñëw bu ko defee ñu saafante comme ça xalaat bi gën a leer si moom moo ko